ko tee amul xarit bu sax ci moom waraate kaat la àddina lay la jegeen te ngir ñoñaam ya war na leen waraate kaat la àddina ay laa àddina xayru xalqi lay du dem waraate kaat la àddina lay lay Yeah, yeah, yeah. ngir saxul waraatekaat la àddina la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya a ak kupiir yaag yeneen ni jumtukaay waa dina taal seeni jëm ma ñi yuuxu naan ñun euh, jërëjëf kooku di Babacar lay muy ndaw loo xamante ni la macha allah euh, man dama lay ñaanal yàlla jàmm ju sax dàkk waaye itam soxna su bees si nga xamante ni jël nga ko ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla rek loo ko yore yàlla na la yomb yàlla def ci njaboot gu barkeel njaboot goo xamante ni njabootu diine lay doon te it nag macha allah am nañ ci yaakaar yàlla yaa sallallahu alayhi wa sallam jële fi euh, maam Serigne Touba euh, jële fi maam Alaaji Malick jële fi ki nga xamante ni moo waral appel di Seydina Limaamul Mahdiyu Laay jële fa sama xarit ba sama soppe ba euh, di Chérif Ousseynou Laay te boobaak léegi kenn sañu ko ne pourquoi kon gëm nañ ni yàlla moo ñu moom te ñun ñëpp danañu dem donte yàlla na yéex la ñuy ñaan waaye nag du tee nañu ko waajal ci waajal googu nag ca la ñu nekk loolu moo tax rek ñuy jéem a def sunu kéemtalaay kattan saa sune ne rek ñuy xëy di jàkkaarloog askan wi di waxtaan ak ñoom ci lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu defare doom aadama nag matul yàlla mën nañoo nattoo njuumte yàlla mën nañoo nattoo sax xëy na peut-être def loo xamante ni àndu ca waaye nag ànd ak lu mën a xew rek saa su ne rek ñu ngi jéem a defi jéego ngir jikko yi rafet jafi jéego ngir gindi askan wi kon ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla rek yàlla nañ ci yàlla saxal tey képp koo xamante ni ànd nga ceeg ñun di ñu ñaanal yàlla ñu ngi ñaan ci kàttanu borom bi yàlla na la fi yàlla bàyyi yow tamit nga yàgg di ñu déglu di ci nuyu bu baax a baax nag ki nga xamante ni mooy soxna Aji Samb di sœur ci fa euh, kii di euh, Fat Fay lay nuyu itam ma mama Bino nekk fële ca Danemark ñoom Aji Savané ñoom ummi ak euh, ñoom ummi Faraaj ñoom ñëpp maa ngi leen di bàyyi xel di kontaan ci ñoom si naa nag ci jamono bi nga xamante ni fi lay dalale sama invité ñu àndandoo waxtaan ci jikko yi waxtaan ci xale yi waxtaan ci li nga xamante ni mooy wàllu média looloo tax nag ñu tànn ko muy xale su ko defee rek ñu bàyyi ko mu présenté wu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñoo di ñu seetaan Euh, jërëjëf soxna si. Mhm. soxna Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax. Mhm. di la ziar. Mhm. encore une fois ci bis bu sell bi nga xam ni képp ku seetaan ci télé bi. Euh, di nga yëg sa bopp ni liggéeyal yàlla rek moo wóor. kon ñi ñaanal képp ku nekk ca appel ba wala ñi fa war a dem yàlla na yàlla nangul leen ci barke yonent bi. amiin amiin Mbaye. di la nuyu bu baax nag. di nuyu ñi nga xam ne ñooy mhm. seetaan 2STV bu baax. Mhm. di am mbégte di toog ak yow. di nuyu kilifa diine yi. Mhm. Euh, di ziyaara bu baax waaye di jiital njaal. ki nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadul Mansour borom daara ji soxnaa soxnaam su baax soosu nga xam ni dafa wuy ci boromam mhm, mhm. eh, di jaale ki nga xam ne mooy suñu maam Khady Ndiaye nga xam ni mooy wéy juru mhm. Euh, Serigne Mbaye si Abdou di Njool Fuuta moom tamit làqu lépp yàggul dara dëgg la dëgg la ñu koy jaale suma Serigne tabarakallahu di ko jaale l'islam bi yépp nag di nuyu ñëpp nag di kontaan ci dalal bi nga ma dalal bu ah, baax waaye di nuyu bu baax sama kilifa sama directeur général El Hadj Bekay di ko ziyaara bu baax di nuyu képp kuy seetaan télé bi soxna Mbaye dëgg la Mbaye jërëjëf euh, yow tamit euh, ñu ngi lay jaajëfal ci ni nga xamante ni rek nangu nga ko ñëw ànd ak ñun waaye sa kilifa googu itam itam lu may wax lu ne ba nga tudd ko damay daal di ne ndax suñu kilifa la ñun ci kër gi itam teyit nag jiite ñu jiite boo xamante ni dafa jël ay décret def ci digg ginnaawam dafa yaatal ba mu yaatu di dox jàmm di wax jàmm ñu koy ñaanal yàlla moom bekkaay yàlla na ko yàlla jàmmal te lépp loo xamante ni yóotu na ko rek yàlla yàlla def mu teg ko ci loxoom te nag mu doon jiglaayam euh, Abdou Aziz euh, gis nañu euh, sama émission gis seetaan nga ko démb gis nga bi nga xamante ni yëkkati woon nañu ko waaye nag euh, daf ci am loo xamante ni dafay delluwaat ci ndaw delluwaat ci comportement xale yi delluwaat itam ci li nga xamante ni mooy jamono bi jikko yi ni mu toll kaa mm-hmm. bu bokk ci waaye dafa am lu ma seetlu xale yi fëkk yomb na leen a yóbbu te it nag ñii ñu ngi tàmmu say ak ay nit ñu weex dem di ci dund ay fitna lan moo waral tey ji xale yi seen jikko yooyu tàmbalee soppeeku ndax wayjur yi la ndax éducation de base ba la wala ndax leneen la laataa ñuy xuus ci deuxième partie bi <laughs> jërëjëf euh, soxna Mbayang danga indi point bu am solo muy wàllu yar éducation mbayaŋ éducation ki ko war a jëkk a def <laughs> mooy nit ki ci boppam na yar boppam. Mm-hmm. dafa war a jëkk yar boppam. dafa jëkk yar war a jëkk yar boppam. dafay yar doomam laata doomam di judd. Mm-hmm. naka lay yare doomam. naka mooy lépp lu muy lekk. Mm-hmm. bu mu ko sàcc. lépp lu muy naan. bu mu ko sàcc. parce li muy lekk. di ko naan. Mm. loolu bu ñëwee mu doon alalu sàcc loolu ci la doom ji sosoo xamuloo. Mm. bu ca doom juddoo doom ji doomu lan la. doomu sàcc. doomu la parce que la mu lekk lewut. Mm. xale bi bu màggee jubadi bu mu la jaaxal. parce que la ko sos déjà lewut. lu jubul xale bi dafa am yar nu ñu koy defee. Mm-hmm. yar nga sa bopp yar xale bi te juddoogul. Mm-hmm. kon bu juddoo dafa am noo koy yare mm-hmm. fexeel ba bul wax lu ñaaw mu koy dégg. surtout. Sénégal fii. Mhm. da ngay gis ku nekk biir këram kenn di ñëw di ko fayoo ko bor mu ni doom ji neel kooku di ñëw sama papa nekku fi yaa ngi koy jàngal. mbala sama yaay nekku fi. wala sama yaay nekku fi. Mhm. yaa ngi koy jàngal fenn. Mhm. ñu baal ma ci kàddu gi. te euh, demagul fenn. dëgg la wala. nga yëkkati te kàddu yoo xamante ni tegginiwul. nga mm. koy nga koy wax mu koy dégg buy màgg day jàpp ni loolu rek moo baax xamuloo. dëgg la dafa am suñu maam bu baax alxaaji Ibrahima euh, Abdoulahi Niass ca Kaolack dafa am bés ñu ñëw ne ko duñu bëgg nga wax xale yi ñu bàyyi saaga. Mm-hmm. mu daan ne ah ñun ko waaw mu ne xaaral woo doomam ba mu ñëw. Mm-hmm. mu ne ko saagaal doom ji delloo ko kàddu gi ne ko saagaal. Mm-hmm. mënu ko saagaal mënu ko saagaal pour moom daf koy wax mu répété mot bi. Mhm. parce que xamul sax turu. saaga mosut a dégg saaga. Mhm. mu ne xale bi mosut a dégg saaga. turu mhm. saaga sax mosu ko dégg. kon xam nga ne kooku yar na doomam ba saaga sax mosu koo dégg kon waroo mën a nekk ak say njaboot di dagg saaga ñu koy dégg parce que bu ñu màggee dañuy jàpp ni loolu rek moo baax. dëgg la xale bi di màgg. léegi nag nit ñi ci boppam. damay faral di wax ni fekk wuy jur yi demagun ba jàkkaarloog seen doom. ni sama doom mu xool la nga ne ko xoolal ci man royal ci man fekk wuy jur waxagu ko doomam yar ba demagut lu tax xaw ma dégg nga mam déet déedéet xool sa doom mhm. ni ko doom royal ci man li may def yëpp dee ko def mhm. doo ma dégg ma saaga du ma jëw mhm. du ma wax lu dul dëgg sama yoon lu mu nekkul sama yoon nekku ca fekk yaa ngi wax sa doom loolu rek ni ko xoolal ci man li may def dee ko def xale baa ngi bëgg a baax mais bu fekkee danga ne sa doom bul jëw te bu sa doom toogee dégg la nga naan waaye gis ngeen mbayee nga ak yéreem bi ni mu mel.